alal moo gën nga bàyyi leen ñuy dem di yalwaani wala ñuy dem di soxla ji soxlaal ñeneen mu ne bon léegi xam naa li ñu olof yi wax naan mbaax ci sa eh, weexu tànk wala mbaax ci sa boppa ci sa kër ci sa njaboot ci sa famille moom ngay njëkk a ñoom ngay njëkk a jox moo tax nag mu ne la wil boobu bu mu paase ci loolu parce que bu paasee rek loolu rek dafay mel ni yaa ngi leen di xañ léegi ñoom seen alal ba duñ ci amati lu bari waaye mu njëkk jox la condition bu njëkk boobu ne léegi li ngay joxe daal warta passé wan ci sa property yëpp léegi nu mun di am warta passé wantaat ba pour nga ji nga xam ne moom ngay joxe bu pas condition boo passé mu ne la dama lay condition itam ñi nga xam ne nga ko jox kon ni ko bon mënut a mënuloo wiir sa nga am ñetti kër nga am kër ñaari kër ngay wil benn bi loolu ko waaye bala ngaa mën a joxe wil kër dafay fekk nga am ñett yoo xam ne ñoo em nga joxe ca nag benn ñett ba lu ko ëpp waaye lu gën a tuuti loolu mënul loo wil sa beneen kër bi parce que bon dafay ëpp li nga xam ne ñi war a doon na si liñ ñu war a am si loolu itam duñ bàyyi wil mu ëpp loolu mu ne la dama tey beneen condition bi mooy ne ki nga koy jox itam dama koy condition dama la condition fofu mooy ma jox la condition boo ne ki nga koo jox wil bii soo ko be ba pare ca la warul passé wan taat nga ne ah mu ne la bon boo ko génnee ba pare tam bul ko jox koo xam ne daf la war a ñi la war a doon jox wil kon nag wil do ko jox sa dom, parce que sa doom dafa war wil do ko jox sa jabar parce que sa jabar daf la war wil doo ko jox kenn koo xam ne ku la war a doon na la koo xam ne dafa la war a doon na rek cëram mu nga fa di ko xaar waaye moom waratuta am wil bon nag léegi ñi nga xam ne ñu ngi wil ci jabar yi bon wil boobu itam du wér jabar yi kum ci mun di doon bu dee aawo bala moo samp kër gi moo def lu nekk lu di doon bon daganul nga wiit jox ko benn ville boo xam ne léegi dafay jëwee ko ci sa alal yow islam ne do ko jox jabar ndax jabar dafa wara dona. doona ñu ne ko lu tax duñ tax duñ ko war jox jabar mu ne lu tax duñ ko war jox jabar mooy jabar dafa am wan it ca sumun mu ne jabar ja dafa am sumun sumun ni alal ji comme niñ ko fi farang fàccee moom itam su fekkee benn jabar la ak ñaari jabar la ak ñetti jabar la ak ñeent ak jabar ak yi demee noonu jabar daal dafa am ci siya àgguñ ci mbiru siya am ñaata la tolloo gi demee noonu wante xam nañ jabar dafa war am siya ci ñu ngi wax ci mbiru wil ca wil duñ ko jox koo xam dafa war am siya ko xam dafa war bon beneen condition bi noonu mooy mu ne la li ngay joxe nii nag bul ko jox kenn koo xam daf la bon xam naa sax <clears throat> ñi nga xam ne ñu ngi joxe wiir war nañ di bàyyi xel di seet toujours ñuy wax naan doom boo xam ne léegi judduwul ci sharia judduwul ci sharia kooku warul laa doona dafa mel ni ku judduwul ci sharia warul laa doona boo doon joxe wiil mun nga ko joxe génneel wil mun nga ko joxeel jox wiilam wante léegi parce que moom amul cër ci li nga xam ne mooy war a doona warul laa doona si bu boobaa mun nga ko jox wil dafa mel tam li ñuy wax naan koo xam ne moo ko yaroon moo ko defaloon nii moo defoon nangam ak nangam ak yooyu yëpp ñooñu warul laa doon na ñooñu mun nga leen a jox wil képp koo xam ne rek warut laa doon na ci sharia mun nga ko jox wil waaye kooku képp koo xam ne daf la war a doon na ca mun na laa doon na ca dina la doon sax dootul feyaa nag léegi fi nekk ni nga jox ko wil ba pare mu amaat donoom mu doon na ti ba pare téye wilam file bon dafay mel ni dafay ëppale ñeneen ñi ci loolu rek la islam di sàmm wanteer moom rek lay bañ bon ville doo ko jox itam koo xam ne daf la war a doon na bokk na ci xale yi nga xam ne yaa leen yar ñooñu mën nga leen a jox bokk na ci ñi nga xam ne eh, ñi waa judduwuñ ci yoon du sax pour ñuy faral ni nga xam ne judduwuñ ci yoon bi wala judduwuñ ci sharia léegi pour ne utal leen benn cër boo xam ne ci kii bi waaye léegi liñ lay wan fii rek mooy ne bokk na bokkuñ ci ñi nga xam ne mënoo leen a jox wil waaye ñoom mun nga leen a jox wil parce que ñoom duñ donn duñ doona duñ donn am seen chia boo xam ne léegi moom lañ leen a jox parfait bon ñooña mun nañ leen a jox euh, wil taxul nag ñu encourage ne léegi bon ñëpp ñoo xam ne léegi gis nañ ne doomu bi nga xam ne judduwul ci yoon Euh, bon naa ko indil wil ba ñëpp di def loolu wil boobu rek pour léegi di ko jële waaye man damay wane fii rek ne léegi euh, ñi joxe wil mënuñ ko jox koo xam ne daf leen war a doon na waaye nag bañ waxee ne ku la war a doon na kon nañ ko joon ca ñooñu bokkuñ ci ñi la war a doon na bon moom ñu ngi bokk itam ci ñi nga xam ne mun nañoo am wil itam bon euh, <coughs> bu ko defee loolu benn condition la ci condition yi itam ne bul ko jox koo xam ne daf la war doon na nga amaat beneen condition boo xam ne mooy ne nang nga ko def itam ci waxtu bi nga xam ne yaa ngi wér ànd ak sa sago def ko ci li ngeen a wax nga xam ne daal kenn sawul la ko kenn waxul la ko xaaruloo ba feebar feebar boo xam ne léegi xëy na sax ci booba nga génn àdduna wala dem nga ba nga xam ne yaa ngi naax màgget xamatuloo li nga xam ne moom ngay wax bu boobaa am na yoo xam ne boo ko fa defee yu bari duñ koo sariya du ko jël ca bokk na ca ville bu fekkee ne foofu bind nga fa ville léegi bon duñ la ko wax bon ba ngay wér ànd ak sa sago nga def ko ci sa coobare boppa boo xam ne dara taxul gisuñ ne dara taxul gisuñ pour euh, xañ ñii dara la wala dooñ pour xam ne ñoom ñoom ñoom moom alal ji ba pare nga bugg leen koo xañ wala gisuñ koo xam ne ñoom amuñ ci alal ji ba pare yow nga bugg leen a jox joxee ko ci beneen façon beneen anam yooyu yëpp bu ci bu ko niroo léegi bu boobaa yoon dina dajji wil boobu waaye léegi dafay doon rek loo xam ne condition yi nga xam ne indil nañ la ko dafa war a nekk condition bi ñu tolloon nag mooy ne bi ngay wér ànd ak sa sago nga xam ne kenn forcé wu la yaa ko defal sa bopp loolu itam condition la ci condition yi wil yi bon beneen condition ba ci toppam mooy ne dañ ko war a bind itam nga saayin ko waaw dañ war a bind ville bi bind bu mut nga saayin ko moom la ñu alxuraan da wax ne isaata daayantum bi day nin ilaa ajalin musamman faktuboo alxuraan sax dañu indi ba nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngee def bépp jaaya jëndante boo xam ne dañ ko def ci waxtu wala dañ ko def boo xam ne euh, ci tànk bi ñoo teewee la ñoom ñoo ngi ko teewee ak boo xam ne ñoom teewee wuñ ko yépp lu ca mun di xew nañ bindante li nga xam ne moom lañ bind wa li nga xam ne moo dox seen diggante nañ ko bindante da nga xam ne ëllëg kenn du mun wax ne lii man defuma ko woon wala li ni du du yefi borom bon nañ ko bind bind bu mu Musa mu ko dam ne man ma ko def ma ko jox ci suma alal léegi kii ma jox ko diw sangam wala ma jox ko ñoom diw sangam walla sax ma def ko fi sabilillah te mooy ma def ko ci jàkka ji ma def ko ci sa bi ma def ko ci loo xam ne léegi lii lu taxawal yàlla la bon condition boobu tam mooy ne bi ngay wér ànd ak sa sago su fekkoon da ko def ci tànk bi nga xamee ne wéruloo wala tànk bi nga xamee ne eh, yow sa xel nekkatu sa bon boobu dañ koy bañ ni ki waxtu boobu tam su fase woon jabar ja bon dañuy wax ne fase bii fase xañ ko la dono walla mu doon fase boo xam ne euh, da nga ko bañal bañal pour mu doona pour mu doona la yooyu yëpp waxtu boo boo xamee ne fase xew na ci waxtu boobu bon fase boobu dañ koy war a bañ moo tax ki nga xam ne dem na ba mag ba nga xam ne mu ngi toll ci naax ak yooyu su fase woon jabaram bon itam fase boobu duñ ko jël dañ ko war a bañ léegi fase bii duggul be bu jëkkër ji gaañoo dafa war a doon na jëkkër ji bañ nañ ko sax nga ne ki nga xam ne daf ko fase ba pare waaye nag moom mu ngi toog di jàpp idda bi mu toogee di jàpp idda ba mu yàgga am na benn weer am na ñaari weer nekk na ci ñetteeli weer ba sax waaye li mun na xew daal mooy ne iddaam bi jeexagul idda boobu jeexagul jëkkër ji gaañu su jëkkër ja gaañoo ci waxtu boobu dafay bàyyi jàpp idda bi mu daan jàpp idda daf koo bàyyi mu dal di ñëw nag mu dal di tiiñ su ñëwee tiiñ ba pare doon na ko dinay xew sax ci jamono xam naa ne coow yu bari dinañ fay xew waaye